ren nag dañoo ñëwaat fii di lancer opération yi nga xam ne moom lañ tuddee waajtaayu Korité 2023 waajtaayu Korité 2023 nag dafa doon activité bu njëkk ci société bu bees bi ñu tuddee Sonaged génn nañ ci ay opération yu tuddee woon les nuits du Ramadan yàlla dimbale ni ñu ñu am niveau boo xam ne nii set gi macha allah loolu nag lañ bëgg a maintenir maintenir googu nag dañoo am benn dispositif boo xam ne ne dañ ko créé dispositif mooy dañoo indi benn plateforme boo xam ne bu njëkk dañ daan wax ne jël nañ réquisitionné nañ ay agent pour ñu liggéey ci feetu korité mais ren dañoo ubbi benn plateforme boo xam ne dañ ne agent bu bëgg liggéey ci feetu korité gi nanga nga inscrire liñ bëgg mobiliser nag mooy ñaar téeméer ñaari junniy nit ak juróomi téeméer muy deux mille cinq cent personnes lañ bëgg mobiliser loolu tax ñu mën a toucher ñaar téeméer ak fukk ak ñaar ci ay euh, euh, mosquée mais également ay marché juróom-benn fukk ak ak ñett ci ay marché loolu lépp aussi li ñu koy may mooy ndimbalal population bi nga xam ne ñoom ñooy produire li nga xam ne mooy mbalin bi mbalit nag bu ñu waxee fête danañ wax marché te bu ñu waxee marché aussi danañ wax ay emballage emballage yooyu nag lañ gis ne moo bëri ci marché yi moo tax tey ñu démarré fii ci marché Grand Yoff pour permettre population yi ne def nañ ay dispositif boo xam ne nii ay bac à ordure la def nañ ay point de regroupement normalisé yoo xam ne képp ku am mbalit boo ñëwee nga sotti ko ci bac yooyu pour faciliter suñu oto yi bu ñu ñëwee xam ne dañuy tibb rek daal di yóbbu ñu bañ ko teg suuf loolu nag day euh, def responsabilité boo xam ne ñëpp lañ oo ñu jàpp ci liggéey bi liggéey bi nag tey lañ koy commencé ci fii ci Dakar lancement la ñuy def waaye fépp ci Sénégal foo xam ne suñ service bi ña nga fa ci délégation régionale yi ci délégation départementale yi commencé nañ liggéey bi tey ba euh, taba euh, korite gi bu passé ba ca ginnaaw ëllëgu taba euh, korite gi danañ continuer liggéey ngir bu fête bi passé duñ am benn déchet boo xam ne ni gis nañ ko ci mbedd mi loolu nag yitte boo xam ne nii ñoo ngi oo population yi ñoo ngi oo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci marché yi aussi danañ leen tegal ay pôle mbalit danañ leen tegal ay oto yoo xam ne nii képp koo xam ne nii am nga ay emballage yoo xam ne defoon nga ko sa nga dikk ca gox yooyu ci point yooyu ñu teg nga mën ko faa def ba mbalit mi du déborder ci biir marché bi